actualité ku nga xam ne tey président Bassirou euh, a ubbi li ni foofu ca jëm ñaajo euh, ci nga xamante ni euh, ni da ko fas nga def li nga xam moom mooy yoon maanaam wàllum justice ndax ku nga xam ne fi mu toll nii moom Bassirou ba mu nekk ci opposition bi mooy ci campagne bi ni kat bu toogee ci def dina fexe ba xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye mm, tey la la tàmbali foofu nga xamante moom mooy ca siyaat ci benn cérémonie d'ouverture mi ko bi euh, mm, euh, pour une justice euh, réformer ci modernisation bu am am solo ki nga nak Pape question bi ndax justice dafa xaw a ñàkk maanaam tëddee njaaxaanay wala lan nga jàpp ni moo tax ba ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye tàmbali nit di def def li nga xam mooy ay wàllum réforme di woote ay borom xam-xam pour ñu wax li nga xam te mooy wàllum justice maanaam wàllum yoon. Euh, jërëjëf jërëjëf Daouda. Mm-hmm. ñu ngi ci yaa ngi ci question bu am solo. mais pour man. Hmm. réforme bi dafa dafa dafa dafa teel. dafa teel ci Sénégal. xam nañu ne justice au Sénégal am na lu ci des yu ñu war a joyanti ñun ñëpp xam nañ ko mais fi ñu toll nii pour man réforme bi waaw c'était pas mm, une, le moment une c'était pas le moment pour sénégalais yi parce que su ma juumulee réforme bii bala ñu koy appliquer fii ak 2025 lay doon c'est pas pour le moment parce que bu ñu defee réforme def ay def ay comité li ñu fi tënkee dañ koy mm. jox président. Mm. président saytu ko yóbbu ko assemblée nationale assemblée septembre la ñuy tëj. Mm. suñu tëjee octobre normalement la la assemblée di di jeex. Mm-hmm. élection yi kañ la. Hein? législative yi waaw. Mm-hmm. kenn xamagul. Mm-hmm. comprendre nga. suñ ci jógee di législative législature boobu di ñëw. boobu député ñu bees nañu doon est-ce que ñoom ñoo war a doon majorité est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que yi dafay bari. comprendre nga. man pour man lii du woon du woon actualité mais nag comme que njiitu réew mi moom ñu koy nuyu au passage tënk na ba nga xamante ne euh, euh, ànd def na dara ba nga xamante ne euh, ànd na ci ak acteur justice yi ñu taxaw ci di ci xalaat du ñu def lu dul déglu leen ndax nag bu dul dara dañ ko jiital moom mu nga xamante ne Euh, yoon tegoon na ko loxo moom mi nga xam ne mooy jiitu mi ak ñi justice bi dafa gàll góose waaw moo ñu réforme bi mm-hmm. man pour man pap la ngay dégg ci euh, la justice mu xaw a moderne modernisation loolu noo koy bon modernisation justice bi mooy li sénégalais bi di def ci circonstance bi nga xamné ne ko koy ko fay défé xam nga Sénégal waxé fi dafa jafé bu ñuy waxanté ñun ñëpp ah. kenn ku ci ne da ngay wax pour say intérêt bop té ñun ñëpp bu ñu tënkoo ci yoon yoon dafa sew da ngay dégg sax nit ñi diko wax hmm. yoon dafa sew bu ñu appliquer lépp à la lettre sénégalais wul loolu sénégalais. ah waaw sénégalais. wul ci yoon. Manam ñoom li ñu jub djubanti sénégalais parce que da fi sax fi est-ce que xam nga baax luma la. date pas d'aujourd'hui buñu bëgg joyanti wala justice ça va être compliqué jikko yi fa changer manam gis nga kel bu dem ba jappandu fenn. ni mi ñun suñu jikko yi nonu la mel justice bien, il faut nous, il faut nous, il faut nous nank nank actes forts mais président acte acte la acte acte la acte mais sénégalais est-ce que xam nga pour il faut préparer les sénégalais il faut que mécanisme justice hein? mu mais le 25 euh, mai bi passé ci la ci ci juge dem démissionné woon mu démissionné woon lettre bi ñep gis nañ ko ñep nañ ko justice bu nga xamantene ci il mu démissionné mm-hmm. ak yenen ak ak genre nit a waroon a woo su a sax woo nañ leen xam nga ñu voilà ñu bok ci ci ci wax li leen sax ma baax la ma la ñu ñoo jarawoo les acteurs de la justice hmm. waxuñu ko nga xamante ne certes ñi nga xam ne dëj nañ leen sax hmm. def ay jafe yoon hmm. ñooñu mën nañ leen a woo ñu ñëw témoins yi ñooñu ci commission yi dañu war a dem nettali fa anonymement yaa ngi de surtout les prisonniers yi nga xam ñoo ñu nga xamante ne dinañ jël solos ndaje mi tënk ko ci ay këyit mën ko wan jiitu réew mi mais c'est pas parce que man activiste laa damay waxal réew mi. Mm. dama ànd ak Pastef. Mm. dañ maa mës a tëj que dañ ma war a convoqué jam ñaajo ma dem ci assise yi. su ma fa demee lu ma fay def am na ci gis naa ci ay nit ñoo nga xamante ne. dinañ ci ñëw <laughs> dinañ ci ñëw moo tax ma ne la jikko yi Sénégalais yi. réforme bii ñu war a def nii. Mm.

xanaa di wax tamit balaa may sori. Mhm. ci départ bi yaa ngi wax ne mu nekk coordonnateur bi jiite coalition ànd taxaw imam ñenn waaw ñenn ci coordonnateur bi waaw bi itam euh, ki nga xam ne mooy coordonnateur bi mooy Hadj Daoud Camara. Hmm. waaw moom moo nekk coordonnateur bi ñun ñoo topp ci ginnaawam ànd ceeg moom. dëgg la porte parole famille bi itam mooy Alhaji Mor Diossi si ñu mhm. bare ngi ci nag ñoom ñu mën la tudd ñëpp daal ñu ngi ci bari nañu macha allah di taxaw ci liggéey boobu insha allah Wa bu fekkee nag lu jëm ci réforme yi nga wax xam man duñ ci mën a sori sax lu bari <laughs> waaye li sëriñ ba wax dañ ciy ànd mooy jikko moom moo war defaru d' mhm. man bokk na ci bayaan yi may def ci suñu juma mhm. yàgg naa ko wax du ren may wax ne Sénégal du problème président la am mais problème nit lañ am il faut ñun problème mu nit lañu am ay nit lañu war a wutaat ba pare su ma waxee ay nit mooy ay jikko kon yu ñu def ci nit ñi ba xam nit ñi fan lañ jógee fan lañ jëm su boobaa koo leen jiitalal mu mat njiit mhm. waaye tant que nit ñooñu amuñu ko mhm. nit ñi koo ñu mën a falal du dem parce que kii falu di ñu jiite ci ñun la jógee te ñun normaluñ kon ki ñuy jiite du mën a normal loolu danaa koy faral di wax ci lu bari mhm. léegi nag bu fekkee réforme yi li ñu ci jublu rek mooy yoon tegu ci yoon baax na yàlla na yoon tegu ci yoon kenn ku ne ñu jox la sa xaq bu ñu xàmmee doom ak kii dul doom mm. bu ko defee làq doom duma doom dafi daal di jóge parce que mm. yoon tegu na ci yoon mm. du ñu xàmmee ki yor ndomba tànk ak ku yorul tànk parce que ku yor ndomba tànk day wàcc yoon su wàccee yoon bu ñu sukkandeeku ci ndomb tànkam bi nañ ko delloo ci yoon su fekkee réforme yu mel noonu lañ bëgg a teg kenn ku ne li xaqam ci yoon yoon jox ko ko alhamdulilah yàlla nañ ci am réussite Euh, man nag su fekkoon sama xalaat. Mhm. bu gàtt comme ni mu ko waxee. Mhm. heure bii foog naa ne. Mhm. jéemoon ñu xoolal ba xam suñu dund mën na wàññeeku wala mënul wàññeeku. Ah, ci la ñu waroon a gën a yóbbu. suñu courant bi suñu ndox mi. seer bi mu seer jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi ko ciy am. ñu lijjantil ñu ba nga xam ne tur boobu fàtt na ñu ubbiwaat beneen. loolu moom man su doon damay xalaat foofu la ñu war a njëkkee d'abord waaye comme jël nañ ko yàlla na fekk njub moo tax te yàlla nañ ci am réussite. amiin bu dul loolu nag rek jaru ko